ki nga xam ne moom lañu dëppee alali Cheikh Ibrahima fal di liggéeyal Baabul Muridiina jaarale ko ci ki nga xam ne moo ko fi nekkal di Serigne Cheikh Jëmb fal ñuy liggéey liggéey yu am solo bokk na ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci kër Serigne Cheikh Jëmb Fall le 5 bu ne ñu dajale ak dund yóbbul ko kër Serigne bi muy dunduk weer wi ci le 5 janvier 2021 bi nag ñu yóbbu fa ak dund gu yaatu lool ñu mën koo xayma ci ceeb diwlin suukar meew keccax géej gi ba ci nag wi nga xam ne moom ngeen jàkkaar lool ñu yóbbul ko sëriñ bi boole ci ñaari camion matt ay keesu jën boole ci it àddiya joo xam ne jébbal nañ ko sëriñ bi lii nag di lenn ci li nga xam ne moom la kuréel bii di alali Cheikh Fall di jëf ci kër sëriñ Cheikh Jëmb Fall ndax jamono bii sax naal nañ fa naal bu mag muy yeesalaat kër sëriñ bi te liggéey bi sori na lool. laa ilaaha illa laa faal laa ilaaha ilaha illa Allah fa la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah fa la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 takkaat laxasaay tey lépp luñ mës a def ci ci liggéey bi def nañ ko haddiyee takkaat laxasaay tey mu jëgën ki gën moom ñun xam nañ ne moo gën kon kii defal li gën ko defal la gën ngir nga am li lépp luñ mës a liggéeyal Cheikh Rafal ko jëmam ji mu néew mu bari mu dimbali ñu rek ci baaxam gi dañ ko nangule waaye xam nañu sax jëfuñu luñ tax ñu mën koo nangu lépp nag takk nañ ko tey jox ko addiya Cheikh Ibra fas yenn àndaat ak moom laxasaay laxasaay gi ñu takkaat tey nag dañ ci sàkku fu sangam gi àgg sunu njaam àgg fa ñun ñii fu turam yu àgg ci baax sunu njaam àgg fa ñun ñi tey ak fa nu jëm loolu képp lañ ci sàkk. bisimilah asalaamaaleykum wa di alali Cheikh Ibrahima Fall di àllal ji sëriñ baa ngi leen di nuyu bu baax te wëlbatikuwaat nag. di wax ne ma ngi leen di sant cant gi nag li ko waral newut ne maanaam doxin wii mooy doxin wi nga xamee ne da koo bokk ci li ko gënal lool ndax da ngeen koo noppal waaye ndokk nit dana dana dana dana dana dana dënmal dara am lu ko dog ba tax fam war a dem du fa dem bu ngeen fàttalikoo ci jamono yële ñu génn wax nañ leen ne yàlla fa mu nekk daa wét àgg fa nag yombut dem ba àgg ci yàlla yombut boo déggee ñuy wax ne nañu sëriñ bi ñaanal bañ mën a àgg àgg a jafe waaye yéen fii ngeen teg seen tànk su ngeen ko teggiwul waxuma la àgg waaye jàll sax dangeen ko def ndax li ngeen wax dafa wér li ngeen jaayanteeg sëriñ bi dafa doon loo xam ne lu wér la lu dëggu la te noonu la Cheikh Ibra doon doxe ak sëñ Touba rek te loolu muy njàngale mi nga xamee ne moom la daan jàngale ngir ñu mën cee dox ndax kat mayetu leen seen bopp jot ci dara waxuma la dara bu ngeen doonoon ñoo xam ne dangeen a yaafuus liggéey bii nga xam ne moom ngeen di liggéeyal sëriñ bi ci kër gi dong da ngeen di wax na kon doy na waaye dañoo wax ne tey fi mu ne nii wut xaalis ak am yàlla ñoo yam saa boo dee wut ba yàlla dogal nga am xaalis dootoo bëggati ñàkk mukk ndax foo toll yaa ngi xool noo koy wutee ngir mu gën a yokku waaye kuy kuy wut yàlla ba am ko dootoo nangooti benn jëmmi jamono ñàkk yàlla lépp loo jàpp ne rek soo ko doxalee gën a ya gën a nuur ci yàlla rek bu boobaa da nga doxale noona yéen nag yéen a ngi ci yéen a ngi ci nag werante wuñu sëriñ bi nangul na nangul na leen seen ab liggéey te nangu na seen jëmm yii amul benn murit boo xam ne tey yi mu ngi gis seen liggéey wala mu ñàkk a bañ a bokk ci yéen ba tax rafetlu wu leen ko ñëpp a rafetlu seen liggéey loolu moom sëriñ bii seede na ko te seedeel na ko suñu Moustapha Fall seedeel na ko Cheikh Ibrahima Fall rawatina ñun ñi nga xam ne dañoo nekk fii ci wetam na ngeen rafet njort nag. ndax daa am loo xam ne ku ci bokk te di ci dox nanga nga xamee ne sëriñ bi daf laa bëgg a dimbale jaayante gi ngeen di jaayante newut ne dafa nekk loo xam ne dafa nekk ci seen i poos sëriñ bi mooy won ab jaamam ni muy doxee ba lim bëgg mu man ko am lu munta am rek du nekk cim xel nangeen xam ne sëriñ bii amut lu mu tële lépp la man dan naa wax ne boo déggee ñu naan tugg tey togg lu sëriñ bi la wootewut laajut euh, euh, euh, tukkiwut te lépp mu ngi dox nam war a doxe loola nag ab liggéeyam la moom mii liggéey du caaxaan moom mii ba nga xamee ne yàlla dogal na tey mu mu mu mu gane àdduna njaareem la ko maamam la ko baayam joxoon nijaayam ba mu ca jógee mu dem ci maam Ibrahima Kan ba mu ca jógee mu ñëw ci sëriñ Fallu ndax sëriñ Fallu moom moo ko laajoon ak njabootam mu jiite woon nag Euh, ñi nga xamee ne moom la sëñ Moustapha joxe woon ci jumaa ji ba bi ba ba bi ba muy dem ci sëñ Fallu la la la mujjee nga xam ne sëñ am na ngërëmal sëñ Fallu am na ngërëmal baayam am am ngërëmal sañ Fallu am ngërëmal sëñ Cheikh Fall baayam góor am ngërëmal sëñ Mouraminta Fall door a toog fii mu toog moom de bokkul ci ñi nga xamee ne dañuy xëccoo ak xalifa bokkul ci ñi nga xamee ne dañuy wax ne dañoo bëgg ak pal ndax daf daan wax naan ku am ab cër. du soxla ci cërëb kenn lenn ndax saa bu sa cër ñëwee rek na nga xam ne ñëw na sëriñ mi nag dafay wax ne rafetlu na seen ab doxin lool dana ko seeral sëñ Touba ak Cheikh Rafal ak Cheikh Mounou Safal moom mi nga xam ne moom la toog jotaayub Cheikh Rafal mii nii na ngeen rafet njort man de ku ñëwut laa waxut ku ñëwut moom laa waxut waaye képp koo xam ne bokk nga ci lii nga xamee ne mooy yëngu bii ngeen di yëngu na ngeen xam ne sëñ bi dimbale ne la dimbale goo xam ne day soo ko xamee mi ngi ci sa biir boo ko xamul mi ci sa biir bu nu jàpp suñu bopp nag ne alal mooy am ndimbal demee wut noonu alal du ndimbal ndax alal ji nga xam ne mooy alalu àdduna lépp ci yëfi seytaane la su la yàlla dimbalee nag ba nga xamee na li nga ciy am da koy dënmal di ko dawal di ko jëmale sëriñ bi na nga rafet njottu xam ne yow sëriñ bi dimbale na la bu baax a baax bala ngaa mën a xam ne sëriñ bi dimbale la nag nanu toog ba wéet suñu bopp ñun rek rek bu boobaa da nga xam ne sëriñ bi dimbale na te wéet dina am ndax fi mu ne nii ñun ñii kenn kuñ ci mën di doon koo ci mën a bëgg bis boo xamee ne suñu borom coobereem yëgsi na da nga ko yóbbu foo xam ne moom dong dana fa wét waaye bis bu fa wéetee dana xam ne jëf rek moom moo wóor kon yéen yéen ngi ci jëf ji nga xamee ne saa boo xamee ne wéet ngeen da ngeen xam ne jëf rek moom moo wóor nan góorgóorlu am pajum aajo sëriñ sëriñ bi dafay wax ne pajum aajo moom mooy lépp loo bëggu rek na faju waaye jàll loo xam ne gudd da nga dem ba mu gi sëñ sax dootoo ko talati da nga dem ba mujj gi lu baax sax dootoo ko mënati ndax la nga xamee ne moom moo lay moo moo lay tënk mooy loola nga nekk noonu moom moo lay tënk ba doo mën a dem fenn kon nan gën a góorgóorlu tey ñaan sunu borom dimbali ñu ba mën a liggéeyal sëriñ bi bu baax a baax sëriñ bi nag day wax ne na ngeen gën a góorgóorluwaat bu baax a baax tey gën a muslu ci seytaane ndax saytaane kat day bewloo doom aadama fi mu ne lii ngeen nekk nii doon góor lool te doon ay jàmbaar lool fexe leen ba bu leen ko naw ndax sëñ bi ku dem mu dem ku demut mu dem lii seen alalu bopp la du sëriñ bi de da leen di dencal dong su ngeen ko jëfee du tee sëriñ bi li mu war a jëf dana ko jëf bu ngeen ko jëfut du tee sëriñ bi li mu war a jëf dana ko jëf kon nan gën a góorgóorlu ba lépp loo xam ne jëf nañ ko nan ko sànni ci suñu ginnaaw mu doon ab denc ñu wëy xoolaat leneen ndax mooy tax luñ bëgg danañ ko mën a am ba boo boo dee tibb di sànni bu yàggee de soo gestoo sa ginnaaw da nga da nga fa fekk ab jàll waaye booy def saa boo tibbee ñaar sànni gestuwaat sa ginnaaw da nga dem ba da nga jàpp na yow jëf nga te fekk na jëfoo ndax kat boo xoolee ne sëñ Mbay Jaxate la mu wax mooy boo doon saytu penku ak saw kaw ak suuf nee na dana saytaane moo la ko ëppale téeméeri junni yoon te du te faatu dana ñëw te bis boo faatoo da nga ko fi bàyyi fa nga xamee ne nag dara du fa doy te mënoo faa yóbbu dara ka fay yóbbul dara na nga fas yéene daw dëndal ko te moom mooy sëriñ bi sëriñ bi xolam sedd na guy yéen moom amatul lenn lu ñu leen mën a waxati yéen lu ñu waxati rek dañ koy waxaat rawatina murit yi nga xam ne dañoo nekk ci kanam sëriñ bi ñoom ñëpp seen xol sedd na murit yi nga xam ne ñoo ngi ci bitti soññaan ngeen leen ñi doxoon soññ nañ leen ñi doxut soññ nañ leen ndax seen doxin amagul kenn koo xam ne ni ngeen di doxee ñoo ngi doxee noonu man naam ñu koy dox nag di ko nëbbatu waaye dox wii ngeen di doxee fii ci kër sëñ bii day ñun de rafetlu nañ ko te gëm nañ ko wóolu nañ ko te lu ñu seede la te li ñuy seede fii ci kanam sëriñ bi noonu la sëriñ bi di ko seede sëñ Moustapha loolu werante wuñu loolu ndax ñun ñuy ñun ñoo dox seen diggante ak sëñ bi kon ñun li ñuy seede ci sëriñ bi moo nekk nii moom mu koy seedeel sëñ Moustapha Fall te loo seedeel sëñ Moustapha Fall mu seedeel ko Cheikh loo seedeel Cheikh mu seedeel ko sëñ Touba te loo seedeel sëñ Touba mu seedeel ko yonent bi te loo seedeel yonent bi mu seedeel ko yàlla kon nangeen xam ne seeni jëf àgg na ba ci suñu borom na ngeen gën a góorgóorlu gën a takkaat laxasaay xam ne lii nii fu ngeen bëgg àgg rek mën na fa àgg waxuma la yéen ci seen jëmmi bopp waaye kenn ku ne rek saw askan mën nga koo defar ci lii ngeen nekk nii waaye bu leen gestu bu leen déglu bu leen def leen dënmal leen rek tey jëf rek li ngeen bëgg da ngeen ko am jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati. taalibeem boobu nekk réew ma di sëñ Alaaji Mor Gueye tam ñëwoon fii bëggoon sëriñ bi signal ko interminato sëñ bi waxoon dana am nee na nañ ko taati bi jàll am na lu mu ñu sëriñ bi nag ci kër gi ñu ngi ko ciy déglu euh, taalibeem boobu ñuy wax it euh, euh, tailleur Korea hmm. dañ koy woowee ñun suñu seex jëmbu Korea yàlla dogal na ne nee daa bëgg amee kayit ba mu nekkee ba léegi amul ay kayit waaw ki jébbalu ba ki dem sëñ Balla Jaañ it waaw nee na ko sëñ bi doole ñaay mi ngi lax saay waat ak mboolem ku nekk bitim réew ñëpp ñëppay ñëw ñëppay ñëw nan gën a rafet njort rek moom kay sëñ bi li wér ba mooy sëñ sëñ Naamar Euh, waxuma la waxuma la sëriñ bi waaye yéen ñii dama leen doon wax naan leen sëñ bii bi ma sa wax ne ma boo déggee nit di wax dogu nee na dogu ku lay wax naan la dogul ma day fekk dafa bàyyi lu tax mu war a ñu mën koo dogul soo amee sa alal def ko ci sa poos waxtu wu la soobee bu la nit ñaanee mën nga ko caa may bu ma la dénkee sa alal sa sama alal tamit su ma soobee ñëw guddeeg bëccëg laa yemale waxtu wu ma soobee mën naa ñëw ne kat la ma la dénkoon laa la la laay laaj kon sëriñ bii su ngeen bëggee lu ngeen dogu suñ borom fekk si leen ci day leen jëf di ko dénk ngeen xool waxuma la sëriñ bi waaye bu boobaa moom ci seen jëmmi boppam moom li ngeen di bëgg duma la wax mënu ci dara de ndax da leen a dencal waaye da ngeen xam ne kon boobu lu ngeen lu ngeen lu ngeen lu ngeen làmb dangeen ko daj bu boobaa ndax nit dana yëngu ci yàlla yëngu yëngu goo xam ne bu boobaa kenn dootu ko mën a yàqalati na ngeen refen jot xam ne lépp mooy baax lépp mooy baax dox leen rek dox leen waxuma la réew mi wala bitim réew waaw waxuma la réew mi wala bitim réew waaye képp koo xam ne tey jii bokk nga ci liggéey bii nii nanga xam ne suñu borom dana la defar dana defar sa fii dana la defar sa sa ëllëg ku ci bokkut nag laa wax waaye sëñ bi nag ma ngi ciy woo ñëpp muy biir réew mi ak bitim réew ak koo xam ne tey fi mu ne nii soppe nga ak ku man di doon rek sëñ baa ngi ciy woo ñëpp nangeen ngeen gën a góorgóorlu na ngeen gën a góorgóorlu bu baax a baax ndax lii kat mënut a ñàkk jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. jërëjëfati Serigne Cheikh Fall jëmb jërëjëfati Serigne Cheikh jërëjëfati Serigne Cheikh Fall jëmbu Serigne Cheikh Fall jëmb yàlla na fi yàgg barke moom Cheikh Ibrahima Fall mu jëgën mu jëgën lu mu jëgën Serigne Cheikh jëmbu moo gën kuy defal ki gën danga koy defal la gën ngir nga am li gën kon mbokki daal ay limaam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi leen di siyaare bu baax di nuyu ñëpp tey jégalu ñëpp mel ne tey jii euh, tombeeg la cinq 5 fii dañoo ñëwoon fii kër Serigne Cheikh Fall jëmb ak waa daal Ali Cheikh Fall gépp indi woon hadiya yi nga xam ne ñu baaxoo indi ci la 5 bu ne muy hadiya dund bi dund weer bi tey nag ñu ñëwoon fii indaale suñu addiya yi jëm ca euh, euh, kër Sëriñ Tuubaa gi ci Mbàkke ñuy ñuy yeesal moo fi stade bi ne woon ñu indi toll ci fanweer yi saako ceeb euh, te ci aw nag te ci juróom benn bidon diw te ci saako suukar te ci ñaar fukki kilo ak juróom ñaar ci keccax ak ñaar fukki kilo ci géej gi teg ci ñaari camion yi matt te ci ñaari keesi jën te ci am dugg moo xam ni mu bari la ak ay kaas kafe ak meew ak kafe euh, euh, gu bari lépp ñu andi ko tey sëriñ bi ak euh, lim ci xaalis lim ba nag boo gisee duñ ko tudd ci xaalis luñ jox sëriñ bi xeeb ko moo tax moo tax duñ ko jël duñ ko tudd ndax loo ko jox rek gis ko jox lu ko raw lii ñu tudd dañ ko mën a ñàkk ba ñu tudd rek moo tax xasida yi nag jàng nañ ci nooru daar yi jaawatu maraaxib jàng nañ ci xasida tolook ci téeméeri xasida yu bokkul jàng nañ ci lim boo xam xamante ni lim bu takku la dafa ko sëriñ Seex Faal jëmb te jiital ci alxuraanu

Euh, jàmbaari sëñ Cheikh Fall jëm xam ne moom mooy suñu jëwriñ fii ci kër gi ndax koroog bi ñëwee ci kër gi ñi ko commencé liggéey bi sëriñ bi taxawal ko moom la ñu bi booleel boobu ba léegi nag mi ngi ci kenn mënu ko ci liggéey bi ñuy liggéeyal Cheikh Rafal ba ci miir ñëpp xam nañ ne tabaseegoon na ci juróom-ñett fukki junni yu teg juróom-ñe juróom waaw tamit ne million la bëgg kon kooka jàmbaar la liggéey yu ñu indi sëriñ bi kenn mënu ko ci kon ñu ngi koy sant di gërëm bëggoon nañ mu wax sax waaye daa mel ne moom kàddoom noonu da ko da nañ ko waxal waaye mi ngi sant moom daal Aliou Cheikh Fall yëpp di leen ñaanal tawféex waaye Aliou Cheikh Fall ñu ngi ko ñaan ci Serigne Cheikh Fall jëm def ko ni leen santee di leen jaajëfal di leen jottali mel na ni ñu ngi ci ëttub kër Serigne bi di door di génn nii di leen jottali cant ak ngërëm bi nga xamante ni bawoo ko ni Serigne Cheikh Fall jëm bu yegg si si yéen kon nag loolee daanaka mënees na mënees ngi ko woon doyloo sëkk ci li nga xamante ni te bañ see sof dara waaye nag eh, Serigne Abdoulaye dafa xam ni ab murid lépp lu ko waay defal cant ga murid yi la war waaye fay ga moom sëriñ bi la war di ñëpp xam nañ fay gi moom ki ngeen doon jëfal muy maam Cheikh Fall gis na lépp te loolee sëñ Cheikh Fall jëmb seede na ko léegi si jotaayu léegi bi di wax ni yéen waa daara ji képp koo xamante ni sa numéro mi ngi si daara ji ñu ngi lay sant di lay gërëm di la jaajëfal amaana lii yëpp bu amee yéen la ah da ngeen ñoo jiital ci kanam rek wóolu ñu doyloo ñu ñu doylee nit ngeen jiital ñu si seen si kan seen diggante ak sëriñ bi waaye ginnaaw cant kóolite gi seen Naamar Seck mu ngi sant képp koo xamante nii sa numéro mi ngi ci daara ji ak ni ngeen si doxee jamono ji leeroon na ñëpp ni xaw xawoon naa met si ñëpp si saaye si ñi nga xamante ni nii eh, laaj yi ñëpp gis nañ ñu mu tegaloo woon ak niñ si doon doxee waaye jamono ju ne saa su ne eh, waxtu wu ñu soññee daanaka laataa kàddu googee daanu lépp loo xamante ni liñ si itte woon la dana ñëw ba dana ñëw te ñëwee ñëwee ñëwin bu kawe kawe njot loolee nag ñu ngi si sant waa daara ji te di maase la cant gi si ñëpp sañe su la tuddi kii bàyyi kii ndax eh, alali maam Serigne Fall mooy mbooloo mi kon nag ñu ngi sant ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp jëfati maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëfati maam Cheikh Ibrahima Fall jërë ngeen jëfati waa daara ayali Cheikh Ibrahima Fall nu bokkati rek di soññ suñu bopp te di leen soññ yéen nu bokkal seriñ bi ak soppe yeeg am di jàmm yi ak képp kuy safoo sëriñ bi daara alali maam Cheikh Ibrahima Fall di kuréel boo xam si ne alali sëriñ seex Fall jëmb la di jumtukaay yi sëriñ bi bëgguk sëriñ bi rek la ñuy dàkk nag di jëf jóg rek jëfe ndigal di bàyyi tere loolu rek mooy sunu mbir euh, tayit saa su ne noo ngi soññ képp koo xam ne bëgg nga aw yiw te aw yiw tax laa jóg loolu moom saa su ne noo ngi ciy soññee ngir doomaadama yi di ko mën a bàyyi xel ndax yàlla xatul te yàlla du xat ku ko bëgg xatal yaa xat kon yaatu na lool te yiw wi yaatu na yiw yi yaatu na lool kon noo ngi soññ kenn ku nekk ku am ak bëgg gu liggéeyal sëriñ bi ne bu fi maam Cheikh Ibra nekkoon ma liggéeyal ko sëriñ Cheikh Jëmbu Fall nekk fi kon noo ngi lay woo ci liggéey bi nga xam ne noo ngi koy liggéeyal ci li ñu tënku mooy xitmaal sëriñ bi képp ñun daal amuñu maanaam naan ba weer wi dellusi ak ba at mi dell si bis bu sëriñ bi di woote bis bu set ñuy wuy si bis bu set ndax xam nañ ne kat fu dara nekk ku fa def dara am fa dara te xam nañ ne fi ñu dëgmal daraa ngi fi te damay wax ne ndaw kat bu dëgmalee mag mu doon dara bu doonee mag dana doon mag mu mage kon nañ dëgmal ki nga xam ne daraa ngi fi moom ku xiif moom mënut a xaar kuy damm nit ku sottal la mën a dal te sëñ Cheikh Jëmbu Fall mii ku sottal la kon nañu góorgóorlu baax dox jëm ci moom rek noo di woo jigéen di woo mag di woo ndaw waa biir réew mi ak waa bitim réew soppeek am di jàmm yi xarit yi ñoo ngi leen di woo ñoom ñëpp rek jërëjëfati ñu ngi siyaar bu baax mbokki daari al Imam Cheikh Ibrahima Fall di rafet lu baax kàddu yi fi jaar yëpp di ñaanal baax a baax a baax sëriñ Cheikh Fall jëm mu yàgg fi loolu tànn wér barke borom Touba di jégalu baax ci kàddu yi leeral kàddu yu gàtt rek ci kàddu gi nga xam ne moom lañ jël tey ñu jox ñu ko mooy kàddu ki nga xam ne mooy kàddu waa neex yàlla Fall baa Neex Yàlla Fall te eh, sëriñ Pape baaw di seen jëwriñ di eh, di ak sëñ mi daal di Jóob yor kàddu gi di ak ak nekk ci biir Neex Yàlla Fall yëpp loolu nag lañ ñu ciy lancé mooy daara ji dafa am ay ay commission ñun nag ñi ngi féete ci commission Neex Yàlla Fall yi mooy ñi nga xam te ne ñoo takkal sëriñ bi laxasaay di ko liggéeyal di ko xinmaal ndax ndax alxuraan boo waxee inna laa asra minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum la ci wax da nga ñii dañuy joxe sa alal da ngay joxe sa alal joxe sa njaboot joxe sa doole daara ji nag loolu moo ci am am na ñoo xamante ni gébbu faal lañ bàyyi mu jiite ko joxe seen alal la ñuy def ak ñeneen ak ñeneen neex yàlla faal yi nag wu ñoom ñoo féete ci takkal laxasaay sëriñ bi te sëriñ bi sëriñ bi ñu takkal laxasaay xam nañ moom mooy kan te kenn ku ne xam na ne ku fekk daara ji démb ba xam ne ki ko yor gaaw na lool ki leen dimbali gaaw na lool te kenn xamul fan la leen jaarale kon nag ñun ñoo ñun ñi xam ne ñoo ñoo takkal laxasaay laxasaay sëriñ bi ñi nga laasa ñëpp xam ne képp ku bëgg am ngërëmal Cheikh Rafal ñëwal dugg ci biir neex yàlla faale takk laxasaay boo ko amee la am mag ñaamoon danga am wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi koy woo ñëpp ci liggéey boobu ñu ànd kook ñun képp koo xamante ni nag am nga pas-pas ak yéene euh, ànd ak ñu liggéey boobu rek man nga ñoo woo ci 77 649 95 88 euh, wala ci 78 534 89 11 euh, bu ko defee rek dañ la mën a tàbbal ci liggéey bi nga xam ne waa daara gi di alalu Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba daara Serigne Cheikh Jëmb Fall yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér ñoom ñoo koy liggéey fii ci biir kër Serigne Cheikh Fall jëmb kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di ñaanal ñëpp.